dal leen ak jàmm Walf Quotidien xëy dalal Malick Gakou njiital grand parti wax na tolluwaay réew mi ak élection présidentielle ñu jëm jàpp ne euh, buñ ko jàppoon ñetti fan ci weeru mars euh, dina doon ngéneel bu fekkee ne deuxième tour day am ñu jàpp ko fanweeri fan ak benn ci weeru mars lépp nañ ko amal laata njiitu réew Macky Sall di jeexal mandam ci bopp réew mi ñaari fan ci weeru avril Malick Gakou dikkaat na ci wàllu quitus fiscal am jot na ko fësal ne amul lenn loo xamante ne jot na ko jalgati ci wàllu yoon ma ngay fay l'impôt loolee sax la sàkku ci bépp candidat ñu fexe ba euh, jëfee ko Malick Gakou jot a leeral ci double nationalité gañ koy tuddal ne mosta beneen nationalité bu dul Sénégal bu dul bu Sénégal amul bu Pologne ak beneen ak beneen ay kàddoom ci biir yéen kaa bi di Walf Quotidien yéen kaa bi am taxaw seetlu ca ñey wax ne dañu war a tas conseil constitutionnel yéen kaa bi bëgg a xam ñooñe ana luñ ci jublu yéen kaa bi di l'info dalal njiital grand parti Malick Gakou dal na ci Amadou Ba ne bu fekkee ne candidat gu wér la na fexe ba xamal askan wi ne tënku na ak yoon ko na ko wone na ko fësal mu ngi ci yéen kaay bi di l'info yéen kaay geneen di source xëy ñu dektali tamit lu aju ci processus électoral bi libéraux yi xam le ne faw ñu càmbaraat ko faw ñu tasaat lépp soo boite ci élection présidentielle yu bees bu ñu buggee mbir yi dox na mu waree yéen kaay bi di le mandane li am ba des mooy fast track moo ci war am bu fekkee ne élection yi dañ koy jàpp nañ ko jàpp ci nu mu gën a gaawee ndax ci jamono ji askan wi yàkkamte nañu lool tànnaat président bu bees yi doon lu soxal askan wi le quotidien moom la xëy njiitu réew Macky Sall ma ngay jiital consultation ya ma ngay waxtaan te ji la fas yéene waxtaan ak euh, candidat yi ñu jot a ràññee ci élection présidentielle yi bu ca noppee dina waxtaan ak ñeneen ak ñeneen diisoo yi ci fas yéene am laata ñuy euh, fixé datu élection yi yéen a kaabi di tribune mbir yi bu mu neex mukk bu ñu fàtte mbirum Soham Wardini mi nga xamante ne jotoon na génn ci parrainage bi doon candidate waaye nag mujjee nañ ko feeñal xam ne double nationalité la am yéen a kaabi ne nañu gëstu yeneen candidat candidat yi ndax defu ñu Rose Wardini déet mu ngi ci yéen kaabi di euh, turbine yéen kaabi di Sud Quotidien ngi ñu dégtal euh, doxum ñaxtu goo xamante ne euh, kuréel gu ñu dupee aar suñu élection jot na ko amal ci mbeddu Ndakaaru lañ ci doon séntu am nañ ko lim bu takku ci ay doomi aadama ñoo leen ci gunge yéen kaabi ne aar suñu moomeel xam ne ne élection présidentielle yi dañ ko war a amal ñetti fan ci weeru mars wala boog ñu amal ko fukki fan ci weeru mars warul weesu ñaari date yi la njiitu réew Macky Sall na mi bu ñu yeggee ñaari fan ci weeru avril sunu moomeel yéen kaabi di critique ne datu élection yi ba léegi jur na jiixi jaaxa ci géeg politique bi ah, Doudou Ka bu coalition Benno Bokk Yaakaar ne bu sañoon ñu amal élection présidentielle fukki fan ci weeru mars wala boog dàq ko ba ñaari fan ci weeru juin aar suñu moomeel ne déet ah, coalition Diomaye président ne eh, élection bëgg nañ ko amal ñetti fan ci mars wala boog fukki fan ci mars mu ngi ci yéen kaabi di ah, critique yor yor bi ne jotoon na gàddaay dem ca bitim réew moom Ngagne Demba Touré dellu réew yéen cabinet demb lañ ko gàttadu teeru gu mag eh, ca Grand Yoff moom Ngagne Demba eh, Touré bu eh, Pastef yéen cabinet di réew mi quotidien njiitu réew Macky Sall jiital na waxtaan la koy wone mooy Dakar dem dikk ma du mooy woon Ziguinchor ak Kolda tàmbale na dem ay woto kaaru Dakar dem dikk ña ngay wutali Ziguinchor loole nag jur mbégte ci askan wa ne yegg si na ci waxtoom yéen cabinet di Le Soleil xëy du ñu jàngatal croissance économique bu Sénégal koom-koom geeg fa mu toll bu ñu sukkandikoo xew ci euh, banque euh, de développement euh, jàpp ne Sénégal ci jamono ji bokk na ci ñaar fukki réew yi nga xamante ne ràññeeku nañu seen croissance daanaka doon na lu mucc ayib ci atum 2024 gi ñu ne yéen a kaabi di direct news ne loolee tax nag Sénégal ci jamono ji dundaat na kodute juralaat na kodute ci bailleurs yi daanaka jot nañoo wóoluwaat Sénégal ndax fa mu toll ci wàllu croissance ci jamono ji xel dala gum na ca yéen a suñu lamb dem ca lamb ja di ñu tegtal takkusaanu démb xomboon na lool ndax Siteu ca la daan naaru sooga sa gu set wecc